waaw ñëw soutenir sama frère rek mu nekk nit ku baax nit ku humble nit koo xamante ne dafa yëg nit donc mu woo ma ma ne pourquoi ma dem. album nice man déglu naa ko avant album bi di génn. loolu mën a nit ku baax la te lu baax rek lay am incha de scène mais légende la te day gën a dem incha allah. récemment sa benn single bu euh, neex. waaw mën a wax. waaw rek mu ngi YouTube dem na ngeen seetaani ko Dieyna authentique. Euh, mën nañoo xaar bien sûr bientôt incha allah. ok sànq yaa bi. waaw Bril sama producteur la donc c'est normal bu yi amee ñu ànd déjà moom mooy defaral kii ci baasoom yu bëri donc c'est très normal ñu ànd. alaaji waaw alaaji daf parce que kër si suuf man maa ko defal <laughs> non non non garaawul <laughs> non bien sûr xaar leen ko bientôt rek incha allah bu soobee yàlla les projets sont complexes. les projets sont en cours maa ngi waajal affaire yu bëri incha allah di ngeen ko gis. d'accord merci. vas-y demal demal demal waaw. des artistes qui fait le plus de vues sur internet ndax te génération boobu lañ toll génération ay vues ak yooyu Djiba donc mu nit la koo xamante ne. wala soo xoolee ji baa ji bëri lay way quoi. non wayul mbëggeel. c'est que mooy mais boo dégloo album bi di nga xam ci ma wayul mbëggeel kese quoi am na ay. ensemble extraordinaire aussi. voilà soo xoolee album am soo xoolee Youssou Ndour bu ñu génnee tey euh, Pape Diouf waa ñëpp ñu génne album te mu ñëw sacrifié woo sacrifié boobu. génne sacrifié wul de sacrifié wul c'est décembre lañ nekk affaire bi musique bi dafa yaatu quoi. tey ñëpp nañ génnandoo tey ci même jour teewul dañuy déglu ñëpp musique moo yaatu quoi te je pense ni loolu yàqul dara quoi et que on est en yi dañoo liggéey ba fii bëgg a génne seen album donc loolu du ci dara man jàpp naa loolu yàqu. man soo boole ci a neex. saa yëpp ma neex. maa defar yu bëri ma dox yëpp ba ma neex. <laughs>